لبيك اللهم لبيك labbayk laa sharika laka labbayk mbokki internet yi mbokku téléspectateur Kossy TV kosi TV ànd ak yéen ci liggéey bu am solo bu mu siqat xalifa saahibul faydatu tijaniya umra édition 2022 tukki mu am solo bu xalifa bi amal fële ci Arabie Saoudi lépp luy xéewal ak xam-xam xalifa bi màngu ko andil ko Sénégal kosi TV def ci gëstu bu yaatu fas leen ko andil mercredi 18 mai 2022 à partir de 21h30 sen télévision man mboxol fayda kosi TV internacional.